mbëggum Serigne Touba mbëggum ñëpp la te damay faral di wax ni taal bu yàlla taal sànni ca matt moo gën di ko jéem a fay yenn saa yi nga dégg nag kuy contre màggal naan màggal gi murit yi liñ ciy dafa ëpp wala seen or yi ñuy takk nga gis jigéen ju takk téeméeri or wala nangami téeméeri million ci or ñi koy wax ñépp soxore jàpp sëriñ Touba liggéeyam ci réew mii mérito na ku mën a sol yére or nga sol ko mais xam nga réew mi bis bu nekk li nga amul ki ko yàlla may dalay déranger lii kese mooy Sénégal loo bëgg te yàlla joxu ko jox ko sa nawle doo ca d'accord ma ne leen màggal yi ci daje yépp yàlla du ko bëgg xëy si ba wàccee kaamil jàng ay alquran yàlla da koo bëgg jox nit ñi ñu lekk ba suur naan yàlla da koo bëgg lu yàlla wax wa yut'imuuna taama ala xubbihi miskinan wa yatiman wa asira sidna aliyum yàlla décoré na ko ci joxe ñam Sëriñ Tuuba fexe ba bisam bi ñu ciy joxe ñam bu ñu jógee ci joxe ñam yi lu ñuy def dañuy tànt bu ñu tàntee lu ñuy def dañuy woo ku mel ni Saliou Seck wala Fallou Seck leen yëkkati leen xasaayit yi xasaayit yi lan la ay mbind yoo xam ni dañu cee tagg yonent bi alayhi salaatu wasalaam booy critique màggal foo koy teg bu dee sañse bu dee sañse bu dee sañse yi lañuy ñuy critiquer mais ku sañsewul sa sa mbaxalu jëm la kii ku fi ñu sañsewul rek daa amul lum sol waaye ku am loo sol da nga sañse réew mi nag daa naqari léegi ndax da ngay sañse sax nit mer boo sañsee ñu mer nga lekk ceeb ñu mer fan la réew mi jëm ma ne leen màggalu Tuuba mënoo ci critiquer dara yonent bi nee nit dafay bëgg boppam jullit dafay set dafay amee xet gu neex dafay bëgg boppam yëg nga ni yonent bi foo ko fekk socc mi ngi ci poosam foo ko fekk peñe mi ngi ci poosam foo ko fekk parfum mi ngi ci poosam kon booy critiquer màggal loo koy critiquer màggal de yii la jaamu yàlla jàng alquran jàng xasaayit bernde sañse